je parle pas de de la justice qui doit parce que loolu du seen cër. am na ñu ko war a def. Mm. mais par rapport ak euh, ñi si amoon ay blessés ñi si amoon ay kii ndax seen à votre niveau am na luy jóge ci yéen di dem ci ñoom wàllum suivi psychologique wala aide financière wala lu yu mel noonu. en tout cas ñun suñu parti suñu parti abandonné wuñu abandonné wuñu ñi nga xamante ni ñoom la seeni cër ah wala nattu dal leen ci mbirum ah, comment dirais-je événement yooyu noonu waaye question bi nga posé nii. Mhm. ñi nga ko war a posé dëgg dëgg dëgg. mooy ñi nga xamante ni ah ñoom ñoom ñoo jox ordre les forces de l'ordre pour ñu wàcc ci terrain bi ah jàmmaarloog population bi ba loolu noonu mu yegg ci foofu. parce que loolu seen liggéey lañ def. ah seen liggéey lañ def nit ñi génnul woon duñ génn. je n'ai rien kan mhm. nekk di def. c'est tout à fait normal. oui waaye tey jii nii toute manifestation boo xamante ni ñu ngi koy def dafa am lu ko sabab. Mhm. tey boo jëlee un leader politique boo xamante ni c'est un leader populaire nga dem ci ay mbirum yoo xamante ni ay mbirum caaxaan la nga bëgg ko si xañ ay droit am nga bëgg ko si xañ ay liberté bëgg a teg ay njabootam si sache vous êtes économiste fiscaliste pas ay caaxaan la est-ce que loolu yaa man dama ko définir à mon niveau parce que li may wax ça m'engage yaa ngi may dégg mhm. dama koy définir amo niveau ok léegi on dira que oui mais noonu Sénégal du baax. non ah. non def. yow xam nga yow li ngay posé question mhm. question yi may posé nii. Mhm. c'est des questions yoo xamante ne yow yaa ko xalaat. amaa na beneen journaliste boo xamante ne bu fi toogoon. du wax la même chose c'est vrai. voilà du wax la mhm. même chose. waaye man tey jii nii par rapport ak question bi nga xamante ni man li ma ci xalaat laa lay wax. te li ma ci xalaat yàlla def na ni la majorité des sénégalais actuellement au moment où je te parle pense la même chose. tey tey man ma jox lu laay waxati encore. non je je te dis parce que parce que dans ce pays là l'opposition est majoritaire. élection moo ko war a wane. mais législative wane na ko. non non non législative gagné wu leen. ah vous êtes arrivé. derrière la la coalition présidentielle. ma jox la benn affaire xam nga lan moo tax lan moo tax derrière bi ngay wax noonu. Mhm. parce que le principe du vote a été biaisé par l'incompréhension des populations. tey jii nii am na département yoo xamante ni ñoom gagné nañ ko amaana bu population bi comprendre loon principe vote bi. ah ñoom bu ñu fa oui mais c'est c'est comme ça ah. mais c'est comme ça. vous avez quelque chose qui a eu ses limites. on est d'accord loolu la ça ça ça a eu ses limites. Mm-hmm. mais sur le terrain on connaît la réalité. yaa ngi dégg léegi man li ma lay wax noonu. par rapport par rapport ak li ma lay wax noonu. li ma doon wax sànq parce que tu m'as coupé. tu as tu m'as coupé mon. d'accord allez-y waaw te loolu fàttewu ma ko <laughs> parce que quand quand quand des forces de l'ordre mm-hmm. prennent des armes parce que booy def intervention ci ay affaire de mutinerie wala genre yooyu noonu si si par rapport à la population manifestation ak yooyu noonu. Mm-hmm. quand tu tires warloo tirer à bout portant direct ci kaw nga war a dóoree mu wàcc loolu ñiy def ñu nekk ñi ñi jàngale yoon xam mm-hmm. nañu ko. mais li ñu gis ci événement mars yi vidéo yaa ngi fi boo demee YouTube. Mhm. boo demee parcelle fële xaw ma la. dañoo viser booy bi tiire ko. mais loolu moo tax affaire boobu noonu ba léegi nii mënuñu ko élucider ñu tirer au clair cette affaire.